ayca mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz kii nag mooy bonbon sucré gars bari xamuñu ko non xam nañ ko ci bi mais tur ñun artistes ñoo ko xam bonbon maa leen. la may lay fay day si jàmm. alhamdulilah. ma bàyyi la nga nuyoo ko internet Dakar Buzz. waaw waa Dakar Buzz maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen gërëm yéen ñii di seetaan Dakar Buzz di seetaan sama mbokk artistes yi maa ngi leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram Euh, ñu gis la ci sargalu Leyti tey nga ñëwal ko euh, lan moo nekk sa digganteeg moom. waa Leyti sama xarit la avant Arcos du judd te door a ñëw dañoo yàgg ci théâtre bi xamoonte sekk lu ne sekk jàmm sama mag la mais sekk la nu mu ne ci cadre liggéey bi te lu tax ma teew te naruma génn dama feebar mais Leyti le fait que muy dimbali suñu jeune frère ak sœur artistes yi rek. loolu jëral la ma su may raam sax damay génn tey bi sax bu ñëw loolu la woon ko. Euh, yan conseil nga koy jox li des ci carrière am. ñaanal ko gudd fan ak wér gu yaram lu mu war a def xam na ko gudd fan ak wér gu yaram gudd fan ak wér gu yaram euh, ñu bari di seetaan sa benn série euh, muy Karma ñu gis ci sa doom mu mel ni dañ ko sànni ay ay ay ay ay ay ay affaire. ba cas waaw nañu ma ñaanal rek mu tane. loolu est-ce que waru fi jeex parce que li ngeen noonu ba léegi mi ngi am. waaw en loolu moo waral ça des passages damay nuyu suñu réalisateur El Hadj Sissoko maison production bi ko produit Marodi di nuyu ñëpp mais vraiment c'est quelque chose d'original da nga dem ci sous région ñu ne li ngeen joué nii ñun loolu la ñuy dund te même Sénégal am ñu koy dund kii fii la bokk du tàkk kii kii fii la bokk te vraiment bon fii leen ko waar daal Euh, ñu gis démb ngeen ñàkk seen yaay ca ba Thiès. waaw lu métti yaay bu baax ku yërëm artiste yi ndaw maanaam ay rakam yi ay doomoom yi ay jarbaateem yi dañ koy ñaanal yàlla rek fu mu jëm mu gënal ko fu mu ci barki na bu ñu ngi lay jaajëf. jaajëf laa. merci sama doomu ndey. Aïcha mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz. ba tey ñu ngi ci programme Leyti bi euh, ki ñu taxawal nag di suñu nijaay di suñu papa euh, tabarkalla tonton Pape Demba nekk suñu nijaay bu spécial ñu bari xam nañ ko nag boo gisee lam yi war a xàmme moom mooy kan mooy borom néeg bu amul palanteer baaxul <laughs> tonton Pape maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di sawaat pour wax ak yow ndax danga bokk si ñun yow danga bokk si ñun lii jomb la comédien dara jomb ko gis naa maa ngi xool sa émission kontaan naa buzz ah. Dakar buzz Dakar trop ci Dakar buzz. waaw ah, ñu gis la tey ci euh, bésu euh, Leyti Fall bi nga fàttali ñu tuuti rek ci moom seen diggante. waaw dama rendre César à ce qu'il appartient rek li mu moom rek laa ko delloo xam nga àdduna amul benn solo man ba may ne Arcos moom nekkuloon Arcos daf ma seedal seede bu baax tey moo tax tey ma delloo ko ko ndax ba may nekk Arcos yow leeroon na la ne booba nekkul Arcos tey mu dem. Euh, waxoon lu rafet ci man te fekkewuma ko ñoom ami Collé def ci seede ñoom si Junior def ci seede ne ma xaw ma kan la de mais léyti de wax na lu baax ci yow nee na nañ la solal moo gën ñu lay yàq moom moo waxoon loolu tey ma dajeeg moom man xaw ma ko ma dajeeg moom ñu ne ma léyti la ma ne ko léyti mu ne ma ma ne ko li nga jëw li ma jëwee de baax na waaye yàlla na la yàlla defal tey ah nga réussir ci aar bi nga doon tey yàlla def na mu réussir man dem naa mi ngi fi moo tax lu baax lu baax la rek yan conseil nga koy jox li des ci carrière am ma koy conseillé daal mooy euh, mu continuer dëggu rek continuer jub ndax jub jafe na trop dëggu jafe na trop te tey seedeel nañ ko ko na ko continuer rek te yëf yi bu kër baay mbaari fii ku gaaw ñàkk ku yéex rek gàtt mu nekk lu am solo euh, waaye papa euh, euh, naka nga gisee aaru démb ak aaru tey. waaw aaru démb ak aaru tey xam nga boo tolloo pour ñu yar la nga bugg a yaraate est-ce que dina sotti ah mi ngi mel ni mineur bu am doom su ko yaayam jàppalewul du sotti mais nag ñu ngi leen di gërëm yéen di leen sant ci ñiy def aar tey ndax ñun biñ ciy dugg dañu wéetoon léegi ñëpp ñëw nañu ñëpp ñëw nañu war nañ leen mën a yaatal mais nag ñoom it nañ delloo nañu nañu delloo nit yi seen cër suñu delloo suñu cër rek su boobaa dinañ mun a yaru dem mais ku toll ci buñ yar na kenn du doo waroo yaraate waaw. boo seetaanee série yi léegi ak euh, téléfilm yi ngeen daan def lan ban yëg-yëg ngay am. na ma yàlla baal li ma ci dégg neexuma mais man du ma ko seetaan yàlla mi ñu tiim xam na ne man sax du ma seetaan suma bopp ndax day tax may damu te damu baaxul. démb ngeen ñàkk seen jigéen ca temps ca ba ca ba yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ndax maa ngi moom la woon ca ca Arcos bu dakaar booba benn Arcos amul mu déggal ma vraiment ñu voyagé mu déggal ma vraiment ni ma déggalee xàmmee ma ràññee ma yàlla na ko yàlla xàmmee noonu te sa ba ca ba Cees ngi lay ñaanal yàlla ruus la ba nga ñëw rek mu ubbi ñëpp àjjana ñëpp dem àjjana ci darajee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. lay jaajëf. waaw lay xamal ne nag le janvier. sargal kundul la avec l' ensemble instrumental ak Balen Linguère boole kook sama groupe mu ñëw lu jot yomb. ci Medina. Sorano. Sorano su boobaa da ngay teew. maa ngi ci ayca mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz comme niñ ko àndee ak yéen ah, boobu ba léegi rek ah, ñu dajee fekk kenn nga xamante ne nag ah, mooy mas ñu bari ràññee ko ci kooru Bidew Mass maa ngi nuyu. waaw taralaala maa ngi lay ziar naka waari. tonton Mass maa ngi lay fay. laal na mu <laughs> yaa jëlee kat bi te yow yow yow waroo maa bàyyi ndax liñ bokk daa bari. na dafa bari nag non mais sama waay nga nag mais maa ngi lay ziar nag di nuyu mont mbokk internet yëpp ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziar. Euh, ñu gis la tey ci bésu Leyti Fall nga fàttali ñu tuuti rek seen diggante. waaw Leyti dafa nekk sama grand Leyti dafa nekk sama idole Leyti dafa nekk sama nit nit laa Leyti production moo ñu boole mais Leyti sekk nañ ñu bari billaay walaay fu ma gis toog man waxtaan ak man. Leyti moo jël téléphone woo ma ñu waxtaan plus de trente minutes Leyti lépp lu ma xewle Leyti dafay teew récemment sama goro bu góor dafa génn àdduna Leyti bu mu koy yëg mu ngi woon voyage Leyti un mois plus tard la ñibbi si Sénégal mekk dama téléphone maas maa ñëw sa kër déplacé ak jabaram uniquement pour ñëw pour jaale si ma xam nga ne kooku kon tey su may toog Sénégal nekk Sénégal ñoo koy sénégal ma bañ a ñëw loolu kon moo defee man ma gor parce que dama jiit teraanga nekk nag. nit koo xamante ne à chaque fois fu ma gisee am na benn conseil bi mu ma jox la ci dañ koy ñaanal munuñ dara suñu loolu ñaanal ko rek yàlla ak suñu borom sàmm yàlla ak suñu suñu borom bàyyi ba mu yeggal projet yi mu teg loxoom incha allah ci kattan borom. Euh, mais euh, euh, Mass lan moo tax gars yi duñ lay gis ci yenn série yi kooru bi dew lañ lay gis bu kooru bi dew jeexee après nga raar lan moo war lool gars yi ñoo la wowul wala yow yaa bëgg a yem Leuz rek. non non de question que gars yi ñoo ma wowul man dama nekk ci milieu boo xamante ne. je veux faire une carrière je veux faire une carrière Kori Biddew moo nekkoon suñu sixième saison te macha allah ba léegi nii ñu ngi nekk ci même longo dond bi ñu ci nekk maa ngi làkkatu maa ngi liggéey xam naa peut-être dafa jotagale pour mu ñëw xam naa ne Sénégalais nam mën nañ ma nam mën nañ ma trop mais maa ngi ñëw ak doole man maa ngi ñëw doole gu rëy. maa ngi nekk benn production boo xam te ne maa ngi ko tourné en Gambie moo tax de Sénégal maa ngi ci daal maa ngi liggéey daal waaye liggéey ci lu bari. mais làqatu bi daal moo la neex. non waaw maa ngi làqatu en plus tamit maa ngi nekk ci benn cellule bu ñu tuddu Kino Teranga ñun d'habitude ñu ngi voyager ñu ngi def ay film te ñu ngi waajal nag ay projection yoo xamante ne dañ ko bëgg def fépp fépp wàcc ci Sénégal parce que comme ñu ngi ciy liggéey ñu ngi indi xam naa incha allah un jour dinaa la musa woo invité la nga ñëw xool suñu liggéey xam ne ñu làqatuwuñte mais ñu ngi liggéey. Euh, démb ñu gis leen ngeen am euh, tiis euh, bu métti bu wàcc seen kaw yéen artistes yi. muy Mama Thiaba Thiès. gisaan waaw Mama Thiaba Thiès. amuñu occasion gisante amuñu occasion xamante mais dafa nekk yaay boobu xamante ne dama koy suivre parce que boo nekkee artiste am na kilifa yoo xamante ne da leen di bàyyi xel te sama yaay boobu ma ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana parce que dama naan képp kuy ndaw képp kuy artiste doon xale bu jigéen royal si yaay boobu parce que mosoo ko def mukk ci mu def si loo xamante ne waaye dafa ñaaw te foo ko déggoo ci ay kàddoom muy conseil jeunes kon ndaw yi da leen roy si suñu yaay booy yi waaw àdduna nag moo demee nii nag yàlla nag bu bëggee mooy jël ku ko neex yaay booy daal ko ñaan yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana. ñu ngi lay jaajëfal. laala ana Biddew. Biddew mi ngi fi. mais ko gis ci yeneen série non mi ngi ci xam nga en plus ngi ci àll bi mi ngi liggéey. tey làqatu ñu ngi làqatu buñ ñëwaatee euh. loolu xam nga nu mu demee yow. merci mais <laughs> bëgg naa yow. am na si am jàmm xéwal